Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de ce des travailleurs des transports routiers du Sénégal réunis autour national. Ils accusent le directeur des transports ainsi que le général du CETUD de faire du dilatoire sur l'aide du chef de l'État destinée en principe aux acteurs du transport en ce contexte marqué par propagation du virus Covid-19 à Rufisque. On se pour sortir les enfants de la rue. Euh, la propagation du Covid-19. Près de 88 euh, enfants euh, talibés ont ainsi été retournés à leur famille d'origine en l'espace de 48 heures. Pendant ce temps, les autorités municipales de Kaolack apportent des dons en vivres et produits hygiéniques à une de daara de la commune sur l'international aux États-Unis. Les le coronavirus sont des plus alarmants avec bientôt 300 000 contaminations officiellement recensées et plus de 7 000 l'Italie reste le pays le plus touché du monde en nombre de morts, avec plus de 14 000 décès pour 120 000 cas. Hassan Thioune est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal est très remonté contre le directeur des transports et du directeur général du CETUD. Il les accuse de faire du dilatoire sur l'aide du chef de l'État destinée aux acteurs du transport. Voici dit Elhaj Ibrahim Seck, leur porte-parole. Il est au micro de Elhaj Moussatia. Nous avons entendu dire effectivement qu'il y avait un budget dénommé Force Covid-19 qui serait de vie des populations mais également des sociétés, les euh, que ce budget effectivement se manifeste la réalité parce que aujourd'hui, c'est que toutes les populations, y compris les pas que de transport, quand on lui demande d'arrêter son véhicule, il doit quand même euh, au moins obtenir un minimum de compensation. Personne qui serait chargée de cela ne nous agrée pas forcément et donc ça pose que ça doit se faire au niveau de chaque gare. Donc nous tenons à ce qu'on respecte les chefs de regroupement des gares. de l'intérieur tenaient à partager le restant de leur budget avec leurs collègues chauffeurs, apprentis et autres. Mais c'est pas facile. dans tous

sont habituellement au cas des forces manipulatrices que l'on ne voit pas. Nous leur euh, euh, euh, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal. L'opération Zéro enfant dans la rue a démarré depuis vendredi à Rufisque. Le préfet et le comité départemental de défense et de protection des enfants ont ramené plusieurs enfants dans leur famille d'origine, par exemple en vendredi dernier. 39 enfants ont été retournés à Koungheul et Kaffrine et hier samedi, 49 sont rentrés à Koungheul exactement et à euh, Tambacounda euh, sur près de 400 daara recensés dans le département. Une dizaine de maîtres coraniques ont accepté le départ volontaire de Sambou. Le lancement de l'opération de protection des enfants vulnérables vivant dans la rue Talibé, enfants de la rue Mandian Fakman, a eu lieu dans le quartier de Djorg Chérif en présence du préfet et des membres du comité départemental de défense et de protection des enfants. Deux maîtres coraniques ont accepté le principe du départ volontaire des Serigne qui ont soutenu qu'ils ne pouvaient plus entretenir les talibés et ont accepté de les faire retourner dans leur famille d'origine. Entre aujourd'hui et demain, six accompagner en vivres et appui financier. L'objectif, c'est de ne plus voir aucun enfant mendier ou errer dans la rue en protection, ceci en collaboration avec les associations et mouvements de jeunesse comme les scouts Croix-Rouge, CMEA Rufisque, encadrés par les travailleurs sociaux du Centre d'accueil Avenir de l'enfant ADE. Pour la journée du vendredi, enfants ont été retournés dans leur famille à Koungheul et Kaffrine. Ce samedi, deux convois se sont 79 talibés et enfants de la rue seront acheminés vers le sud du pays, dans leurs familles respectives. Le dernier convoi est prévu pour lundi. Ceux qui n'ont pas de destination seront placés au centre d'accueil Avenir de l'enfant, à la maison des éclaireurs et au centre national de formation et d'action. Les autres daras qui ont accepté les conditions de rester et de retenir les enfants seront appuyés en denrées de première nécessité et financent des actions qui entrent dans le cadre de protéger les enfants Covid 19 Rufisque Denisia Lutte contre l'errance des talibés dans un contexte très difficile par la pandémie du Covid-19. Vous le savez, le Sénégal compte à ce jour 219 cas euh, déclarés positifs, dont 72 guéris, 2 décédés, 1 évacué et 144 sous traitement, raison pour laquelle la municipalité de Kaolack cible en attendant une cinquantaine de daara qui ont reçu des vivres et des produits hygiéniques. La cérémonie de de dons eu à la mairie de Kaolack. Voici Ami Mbodj, vice-présidente de la commission nationale à la mairie de Kaolack, au micro de Mamadou Camara. Euh, je suis là avec la présidente commission sociale, Madame Ndjegan Wanli, accompagnée de Madame Mamsay Diata, membre de la commission, Ndiaw Sar, les Serigny daara et leur coordonnateur, sous l'autorisation de Madame la maire, Maria Massar. Euh, comme vous le savez, nous sommes dans une période très critique, menacée par une maladie qu'on appelle le coronavirus. Donc il est l'heure de lutter contre cette maladie. Comme vous le savez, Madame la maire, Maria Massar n'a jamais ménagé aucun sa population, à savoir la population kavlokoise. a choisi parmi ces daara. Avec la commission sociale, nous allons nous déplacer, donner à chaque daara un sac de riz, une caisse de savon et une caisse d'eau de javel, au moins pour préserver la survie de ces talibés ainsi que leur Raison pour laquelle notre commission sociale, avec l'utilisation de donner des dons, elle a de, de de dire oui à chaque fois qu'on a besoin d'être présente autour de sa population, qu'il soit Korité, qu'il soit Tabaski, qu'il soit les périodes de tout chacun, à savoir les collectivités territoriales et les collectivités locales. Lutte contre le Covid-19 toujours à Diourbel, les hommes de bonne volonté appuient des daara à Keur Cheikh, Adama Ndiaye. Suite au cri de cœur lancé par les maîtres coraniques de Diourbel, des hommes de bonne volonté du quartier Keur Cheikh Ibra Fall se sont mobilisés pour aider les talibés dans leur prise en charge alimentaire, surtout dans un contexte d'état d'urgence. Ainsi, une importante quantité de vivres a été mobilisée est mise à la disposition de 13 d'Arabes de la commune. Moustapha Nian, habitant de Kercher et Brafal, porte leurs parole. Ah, depuis le couvre-feu, euh, les talibés sont confrontés à de nombreux problèmes. Ils ne savent à quel sein se vouer et ils passent des nuits blanches sans prendre de repas. Ah, c'est pourquoi nous sommes mobilisés pour répondre vraiment à, à cet appel. en mobilisant deux tonnes de riz, deux taureaux et une somme d'argent pour euh, les accompagner dans la prise en charge alimentaire, euh, soit 4 000 francs par dépense alimentaire. Donc nous allons les prendre en charge pour une période de 10 jours. Et ce geste symbolique et très significatif a été rendu possible grâce à l'appui euh, du ministre euh, Dame Diop et du directeur de l'emploi, M. Pamodou Fall. Ces hommes de bonne volonté invite les populations à respecter les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Nous invitons les populations à se mobiliser et à ne pas se dormir sous les lauriers et à continuer à respecter les mesures de prévention d'hygiène édictées par euh, le corps médical et le corps paramédical. Il faut rappeler que l'association pour le développement de Sambé dans la commune de Patar a également mis à la disposition des ménages de la commune de Patar et de leurs postes de santé du matériel de nettoiement pour prévenir le Covid-19. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Direction euh, Thiès où le calife de Ndiassane apporte une contribution à l'État du Sénégal. Il appelle les populations à suivre les instructions des autorités, c'est-à-dire rester chez elles pour stopper la propagation du virus. Babacar Sow. Lutte contre le coronavirus, les autorités religieuses de Ndiassane appuient l'État du Sénégal avec une forte enveloppe financière. Le geste symbolique en présence de l'autorité administrative, le sous-préfet de Pambal, une occasion pour le khalife général de Ndiassane d'appeler à la recommandation de prière. Papa Abdourahmane Kounta, porte-parole de la famille Ahlul Kountiou. mu doon loo xam ne lu symbolique la muy enveloppe boo xam ni def ñetteel la mu cay def sant na ñi tëjee mooy ñaan goo xam ni sëriñ bi baaxee na ko njaboot gi ak askanu Sénégal nee na mi ngi ñaan képp koo xam ni ngi yeewoo fii ci réew soo ba pare ak loo yàkkamti yàkk na nga toog ubbi ko benn salaatu ala nabi jàng juróom-ñaari fatihatul kitab bismillahi ba mu yegg teg ci salaatu ala nabi juróom-ñaari yoon nga dem sa yoon bu ko ñëpp defee de jot na ci mbaaxu yàlla ni li nga xam ne moo ñu tiital yàlla dina ko fi jële la lutte contre le coronavirus une bataille à laquelle le chef de l'État Macky Sall a invité tout le monde selon le sous-préfet de Pambal Ndiogou Ndong Je me réjouis d'être là soir auprès du Khalif général des Khadr, Serigne Bekaye El Bekaye. Cette cérémonie qui nous réunit au palais Khalif pour la remise symbolique de sa participation à la lutte déclenchée par le chef de l'État pour combattre le coronavirus. C'est une bataille à laquelle il a invité tout le monde, chefs religieux, responsables politiques, leaders politiques, tout le monde, pour amener son arme pour cette guerre. Nous sommes en guerre, donc nous avons besoin d'armes. Cet après-midi, le marabout nous a appelés pour nous remettre une importante somme d'argent. Une occasion pour le calife de Ndiassane, Cheikh Albekaï Albekaï Kunta, d'appeler les populations à chez elles. Papa Abdourahmane Kunta, porte-parole de la famille de Ndiassane. bi ci des mooy toog ci kër yi il faut mu am parce que loolu itam nañu xam ne alxuraan ko santaane moo santaane bu balaa ñëwee loo xam ne dafa tiital ñëpp kenn ku nekk na toog ci këram bu mu yóbbu bu mu indi bu demee mën naa yóbbu À 7h euh, à 6 de 57 minutes, on passe à la page internationale avec le Mali où le secrétaire général à la communication de l'URD demain les informations qui circulent euh, sur les réseaux sociaux faisant état de la libération de Soumaïla Cissé, leader de l'opposition malienne enlevé, une information fausse précise. Maître Demba Traoré, le secrétaire général à la communication du parti de l'URD Mali, il téléphone de Birama Ndiaye. Et je tiens à vous dire que euh, l'information qui circule selon laquelle euh, l'honorable Smeila Sissé a été libéré est une fausse information. Hein, Jusqu'à l'heure où je vous parle, euh, nous n'avons pas encore les nouvelles de l'honorable Smeila Sissé. Donc euh, nous considérons que c'est une fausse information puisque jusqu'à présent nous n'avons pas les nouvelles de l'honorable Smeila Sissé. Je tenais à vous faire euh, ce démenti Euh, à l'attention de vos euh, auditeurs. Alors qu'on approche la barre des 60 000 morts dans le monde, plus d'un million cent mille cas d'infection sont officiellement euh, diagnostiqués dans 190 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. L'Italie reste le pays le plus touché en nombre de morts avec plus de 14 000 décès pour 120 000 euh, cas en nombre de cas. Les États-Unis sont le pays le plus atteint, bientôt 300 000 contaminations officiellement recensées et plus de 7 000 décès. En Chine, le bilan hors les territoires de Hong Kong et de Macao est stabilisé à 81 639 cas. En France, les, le coronavirus a fait plus de 7 500 morts. Le pays, confiné depuis le 17 mars pour lutter contre l'expansion de l'épidémie, a enregistré 441 euh, décès supplémentaires dans les dernières 24 heures à l'hôpital, moins que vendredi quand on avait enregistré le pire bilan quotidien depuis le début de l'épidémie. C'était 588 morts. Et puis en Espagne, le confinement se prolonge. Le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez a décidé de prolonger de deux semaines, soit jusqu'au 25 avril, l'état d'alerte et de confinement général de la population Il devra obtenir pour cela l'aval du Parlement la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes, retrouvez Hapsa Eliman Wane pour le journal en Wolof. Euh, très bonne journée à toutes et à tous. asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci euh, xibaar yi euh, ci pàcc bu njëkk bi euh, li si nar a gën a fës nag bokk na ci maire bi nga xam ne moom la liggéeykatu ñi nga xam ne ñooy yëngu ci dem beeg dikk bi ci wàllu suuf si nekkee ñoom nag dañoo dajaloo ci benn syndicat li leen métti nag mooy ndimbal bi nga xam ne daal moom lañ leen war a jagleel jëmale ci wàllu jeexital yi nga xam ne gënul si seen secteur te coronavirus teg leen ko nee nañ ndimbal boobu daal ñoom dañoo yaakaar ne daal dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci suuf ngir dikk yéexal ñu bañ mën cee jot euh, moo tax it euh, joxoñ nañ baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy directeur des transports routiers ak euh, ki nga xam ne mooy directeur général bu CETUD ca Tëngéej moom ngaar wala li nga xam ne ni la coronavirus bi di lawee bu baax a baax ci Sénégal tax na ba ñu jàll jëlee xale yi nga xam ne ñoo doon taxawàllu ci mbedd yi luy tollook juróom-ñetti juróom-ñetti ay taalibe daal yu bëree bëri ñoom lañ jëlee ci mbedd mi loolu yëpp ngir delloo leen yenn seen i eh, njaboot ngir ñu mën a rëcc ci boobulee feebar ci jamono jooju ñi nga xam ne ñoo ŋànk eh, mairie bu eh, Kaolack ñoom it daal jël nañ ay dund ak lépp loo xam ne dafa jëm ci ay produits ngir daal raxasoog yu ni mel yóbbu ko ci daara yi nga xam ne ñoo nekkee foofule ci commune bi ci biti réew it danañ waxtaane wàllu coronavirus bi rawatina ci États-Unis ndax foofu daal lim yi nga xam ne moo fa am daal jéggi na dayoo ndax boo xoolee luy tolloog ñetti téeméeri junni doomi aadama ñoo am boobule jàngoro ak ci it euh, luy tolloog euh, ñetti euh, juróomi ñaari junni ci ay doomi aadama ñoom it ñàkk ci seen bakkan itali nag moom li fa gën a fës daal mooy ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci mbir mi foofu la gën a fësee ci àdduna wërngal këpp Assane Thioune la ñu ciy àndal moo ne ci xarale gi. Habsa Elimane Wa. asalaamaaleykum dal leen jàmm ci euh, xibaaru suba si dañu koy door rek euh, wàllu coronavirus bi rawatina ndimbal yi nga xam ne daal moom la nguur gi fas yéene jox ñi nga xam ne ñoo ci gën a sonn bokk na ci ñooñu wàll ñi nga xam ne ñoo yore wàllu dembeek dikk bi euh, syndicat bi nga xam ne moo ëmb liggéeykatu dembeek dikk bi ci wàll suuf ci Sénégal ñoom nag dañoo mere bu baax a baax directeur des transports ak directeur général bu CETUD ñoom daal nee nañ li leen jaaxal mooy doxalin bi ñuy doxalin. Euh, daal bi ñu amal jëmale ci euh, ndimbal bi nga xam ne moom lañ leen war a jàppale jëmale ci wàllu boobu boobule duñ ci sori dañ ci déglu kenn ci ñoom di Alassane euh, Ndoye ci micro. El Hadj sàccam Thiam. président de la république dafa joxe mot def couvre-feu nit ñëpp nañu toog kenn ku nekk fa nga nekk bu fa jógee fekk na auto transport en commun yëpp kenn ku nekk yaa ngi ci raison yi bàyyi sa kër ñëpp respecté nañ ko toog ci raison yi kenn mënatula dem kenn mënatu la ñëw ñu am ay déclaration yu ñuy dégg dañu am nag ñoom ay lobbying yu ñuy def yoo xam ni ànd ak ay certaines personnes ci transport ñu jox leen ay information ci na ngeen recenser nit ñi ndax président day jàppale chauffeurs yi nga xamante ne bi dañu gàllankoor seen seen seen liggéey. nag dañu ni si président la jógee jaar si ministère des transports jaar si directeur transport ak surtout ñooñu information bi ñu mën a joxe si régions yi mooy chef division yi si transport joxe nañu ko nag recensé nañu ko ba pare mais gisuñu dara ndimbal moo xam ne dafa jóge si état bi jóg si chauffeurs yi. chauffeurs yi nag sonn ñu ngi si régions yi toog mënatuñoo dem ñëw chef de garage yi tas nañu seen i ba jeex na kon ñoom ñi nga xamante ne bii nag ñoo jëloon ay matuwaay ba gaaraloon nit ñi nañu fexe pour euh, euh, jox seen chauffeur yi seen redevance loolu nag su fekkonte ni jaaroon nañ ko fi ñu ko war a jaar nga xamante ne bi wax nañ ko ak njiiti transport yi ñu jiite chauffeur yi yaakaar naa ni loolu dinañ ko teg ba bu mot d'ordre bi jógee chauffeur si mën ko respecté te duñu loru nee nañu président dina leen dimbali ni mu leen di dimbalee nag na wax ñi jiite transport te bañ a seet ñi nga xamante ne bi da leen a neex rek te ñu jox leen mot d'ordre euh, message boobu am na ñoo xamante ne bii nee nañu Cheikh Omar Gueye moo leen wax nañu recensé ñi ñu recensé ñan la nee na ñu chauffeur yi nga xam ne ñooy daw interurbain ñooñu rek la wax wala muy dem Guédiawaye wala muy dem Parcelles Assainies ñu ni ko ñaari nit nga jël kooku est-ce ñu ko est kooku bokkul si ñu war a dimbali ñi nga xamante ne bii si transport bi lañ doon dunde chauffeur bi daw moo leen du dem di ñëw di leen jox seen dépense chauffeur bi dematul ñëwatul kooku kon fu muy dundee njëkk njaay bi nga xamante daan yëpp quarante personnes ñu ni ko quinze personnes ngay dem beeg dikk bi jëm ci wàllu euh, suuf si si euh, mim réew ñu wax ba tey ci wàllu feebar coronavirus bi euh, ngir daal muccal gone yi nga xam ne ñooy ne ci mbedd mi moo tax it fële ci tëngee ci àjjuma bi ñu génn la door benn opération boo xam ne li ko tax a jóg mooy jële leen ci mbedd mi préfet beeg comité départemental daal li nga xam ne ñooy aar ak ak yelleefu ndaw yi foofule te di leen sàmm bu baax a baax ñoo daal jël ay ndaw yu bëree bëri ay xale yoo xam ne ci mbedd mi lañ lañ nekkoon delloo leen seen i eh, njaboot ñu bëri ci ñoom ñu delloo leen Koungheul Kaffrine ak eh, Tambacounda Denisia Sambou lancement delloo taalibe yi ak xale yi wër ci mbedd bi ñu ngi ko tàmbalee ca quartier Diorga ci teewaayu préfet ak commité départemental buy aar tout tànk yi foofee nag ñaari sëriñ daara nangu nañu ñibbi ñibbiwaat ci seeni coobare ndax mënatuñu téye ak toppatoor xare yi nga xam ne nee nañu dañ leen di bàyyi ñu ñibbi ci seeni waajur tey ak suba yi tamit lu toll ci juróom-benn maître coranique dinañ ci topp dinañ leen dugal ci ay bus yóbbu leen waaye tamit gunge leen ak i dund ak koppar bokk na nag ci lu waral lu ni mel fexe ba benn tout tànk dootul mbedd yi ñu lëkkaloo ceeg association mouvement jeunesse yu ci mel ni scout éclaireur ak croix rouge waaye tamit travailleurs sociaux ak avenir de l'enfant yi adee bëccëgu démb aljuma lu toll ci fanweer ak juróom-ñeenti tout tànk delloo nañ leen ci seen famille fële ci Koungheul ak na ci samedi bi tamit ñaari convoi joge nañu Tëngéej dem Koungheul ak Tambacounda ñu defoon nag lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñeenti tout tànk dibeer bi ñeenti kaar dinañu jóge Tëngéej ak juróom-ñaar fukk ak yoo xam wàllum réew mi ci seen famille convoi bu mujj bi nag ñu ngi ko programmé altine ñi nga xam ne xamuñu fu ñu dëkk wala amuñu fu ñu jëm dinañ leen placer ci centre d'accueil ADE maison des éclaireurs ak centre national de formation et d'action daara yi nga xam ne nee nañu dañuy toog fas yéene respecté conditions yi ñu tëral dinañ leen jàppale ci wàllu dund ak itamit koppar ngir ñu mën a téye xale yi dina ko boo xam ne dañ koy amal ngir aar tout tànk yi wër ci mbedd ci ji ñuy wax covid 19 ay kàddu ngir téye gonongo yooyu la seen i daara faaw ñu am lu ñu fa dundee loolu la municipalité bu Kaolack xam moo tax daal ñu jël luy tollook juróom fukki ci ay daara yoo xam ne ñoo nekk ci commune ba yóbbul leen lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu dund ak produit yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci wàllu set muy ay produit hygiénique loolu yëpp ngir ndongo yi juge ci mbedd yi bañ a dem di taxawaalu ji wala di dem di uti saraxa ñu déglu si ki nga xam Kaolack Amy Mbodj lay euh, wuyoo euh, ñu déglu ko ci micro Mamadou Camara. Euh, madame Diegane Valli mi nga xam ne moo jiite commission sociale bi si maire bi si ndigalu madame la maire Mariama Sarr ànd si ak la commission sociale maam say yaata mi ni sama wet secrétaire élu ñu koy ooyee Diaw Sarr gis ko fi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si maire bi avec la présence sëriñu daara yi xam ngeen ne population Kaolack nekk am na ay daara yu fi nekk buñ tànn a may sa benn saagu 50 kilos ku nekk am nga sa keesu saabu loolu lan moo ko indi mooy depuis que nga xam ne le mars feebar bii ñuy ooyee coronavirus gane si na Sénégal dañoo nekk en collaboration avec le ministère de la santé seen xam-xam nag màcc si wàllu santé ñu ne feebar bi liñ koy war a njëkk a def mooy dañ koy xeex loolu moo tax ñun ñu jël si suñu budget ànd ko ak madame le maire Mariam Sarr nga xam ne du mos a toqi indi saabu indi eau de javel mooy li nga xam ne moo nekk slogan Sénégal toog leen seen kër yi bul ma laal bul ma jege kon nag bu fekkee doo ma laal doo dafa am loo xam ne leen ko jox sa kër ga nga di ko dundee ndax kuñ jox ceeb jox la saabu jox la eau de la waxee dinañ dikkaat booy boo ñu ki doon àddu ñuy teewlu mooy ki nga xam ne moom lañ toftal ci euh, présidente commission sociale ci mairie bu Kaolack muy euh, Ami Mbodj doon wax ndimbal bi nga xam ne moom la mairie bi yóbbul daara yi nekk foofu foofule ba tey euh, ñu wax ci ndimbal yi nga xam ne moom la ñuy indil daara yi jugee foofu lay ca Kaolack dem ca Njaareem loolu yëpp ngir xeex wàllu jàngoro virus moo tax daal am na ci ñenn ci askan wi yóbbul ay ndimbal ca daara yi nga xam ne ñoo féete ca Kër Cheikh Adama Ndiaye. ginnaaw bu sëriñ daara yi yëkkatee seen kàddu ne daal war nañoo jàppale ci wàll wi nga xamante ne mooy lekku taalibe yi ay nit jóg nañ nag dëkk Kër Cheikh daal jàppale ñi nga xamante ne ñooy daara yi nekk ci gox boobu ngir nag ñu mën a di lekk looloo waral sax ceeb ak diw ak li ci aju yépp jox nañ ko lu war a jege fukki daara ak ñett ngir nag mën a dëppoog état d'urgence bi nga xamante ne moom la nguur gi lancé Biram Waaj moo yore seen kàddu mooy xale yi nga xam ñoo nekk ci daara yi bu vingt heures xasee jot heure dañu daan dugg ci kër yi ñoom di yelwaan te couvre-feu bi yoon mayul kenn ngay génn di taxawaalu donc xale yooyu kay ñu ngi ci ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu moom mooy nan la ñuy def ba lekk suñuy doole bi ñu ko boole woowaat suñu ay kilifa ñi nga xam ne ñoom ci koñ lañ dëkk en tant que popul euh, habitant du quartier ku ci mel ni le ministre Dame Diop ku dëkk ci quartier bi la donc ku ci mel ni le directeur de l'emploi Pape Modou Fall ci quartier bi la dëkk ñoom itam bu ñu leen waxee xalaat bi xalaat bi rafet lool ci ñoom ñu appuyer ñu ngir ko ñu mën a li nga xam ne moom moo nekk deux mu ànd ak euh, vingt Euh, bouteille d'huile de de de dix litres ak benn somme d'argent boo dañ koy jox chaque daara suñ la joxee maanaam lu denrée bi boole ci dépense quotidienne dañu jël nag euh, tey euh, xalaat ne fii fukki fan ñun dinañ jàppale daara yooyu ci ñu mën a am lu ñu lekk ci biirub dix jours. moom nag muy yëkkati ay kàddu jagleel ko askan wi ngir ñu moytandiku. feebar bii di coronavirus. feebar bi lu am la ñu xam ne feebar bi impact yi mu indi ci biir réew mi dafa nekk nag impact yu méttee métti sur le plan économique gis nañu ne dana jafe ñi nga xam bi dañoo nekk seen loxo jotu seen ginnaaw pour ñu mën a génn dem ci biir marché yi wut lu ñu am ba mën ko jox seen njaboot xaw na jafe waxantuma ak borom daara yi kon dafa jot ay kuréel yu mel ni jóg waxtaan xoole si boole seen ay doole ngir mën a jàppale ñoo nga xam ne dañoo nekk ci ay situation di jafe-jafe. kon ñu bi nga xamante ne moo jóg ngir suqali Sambé moom it def na li mel ndax yëkkati na xaalis daal di jënd ay produits jàppale ko ña nga xamante ne ñoo fa dëkk waaye it poste de santé ba fa nekk ngir nag xeex di jëm ci Covid 19. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye jërëjëf dañuy jugee ci euh, Diourbel boobu nga xam ne yéen a ñuy déglu ci 94 euh, point 1 jàll ci euh, Thiès fi nga xam ne yéen a ñuy teewloo si 102 point 2 ñu wax ba tey ci wàllu jàngoro virus bi xalifa bu Ndiassane moom it daal mi ngi jàppale nguur yu baax a baax ci xeex bi nga xam ne moom lay xeex boobule jàngoro moo tax it daal mi ngi soññ askan wi ñu toog seen i kër loolu yëpp ngir jàngoro bi bañ law bu baax a baax Babacar Sow. faagaagal sax kilifa yi ngànk ndogali ci wàllum diine ca diwaanu Ndiassane ñoom nag taxaw tembe ci wetu nguurug Sénégal joxe koppar yu takku ci li ni mel di loo xam ne lii ci teewaayu autorité administrative bi di sous-préfet bu Pambal tax na ba xalif général ahlul kuntiyu di santaane ay ñaan papa Abdourahmane Kuntaw jëwriñ jore kàdduk xalif bi ñu toog jotaay bii pour mu wane yéene mu doon loo xam ne lu symbolique la muy enveloppe boo xam ni def ñette la mu cay def sant nañu nag moom sax bi ndax bind na ko ci ba noppi mu wax nag ni bi ci des mooy fi ñuy tëjee mooy ñaan goo xam ni sëriñ bi baaxee na ko njaboot gi ak askanu Sénégal nee na ngi ñaan képp koo xam ni yaa ngi yeewoo fii ci réew soo jullee ba pare ak loo yàkkamti yàkk na nga toog ubbi ko benn salaatu ala nabi jàng juróom-ñaari fatihatul kitab bismillahi mu yegg teg yoon nga dem sa yoon bu ko ñëpp defee de jot na ci mbaaxu yàlla ni li nga xam ne moo ñu tiital yàlla dina ko fi jële xeex ak coronavirus nekk na loo nekk na lu rëy rëy rëy rëy rëy jàngale bu mag a mag la kon ñu leen ci gërëm di gërëm bu baax porte-parole ci turu arrondissement Pambal ñaan yàlla sëriñ bi yàlla yokk fanam li nga xamante ni mooy jàngoro yi lëmbee réew mi yàlla gaaw ko fee génne ñu profité waxaale rek nii toll nañ foo nga xamante ni suñu amee kilifa rek tënku ci ci ndigal lu bare mën a dañ président république wax kon loolu tamit ñu ngi leen ci gërëm bu baaxam a loolee tax na sax ba xalif bu Njaasaan Cheikh Albekaay Albekaay Kunta di ñaan askan wi ñi ci bëri nañu toog seen kër Papa Abdourahmane Kunta bi ci des mooy toog ci kër yi il mu am parce que loolu itam ñu xam ne a ko santaane moo santaane bu balaa ñëwee loo xam ne dafa tiital ñëpp kenn ku ci nekk na toog ci këram bu mu yóbbu bu mu indi bu demee man naa yóbbu jàngoro bu demee mën naa indi jàngoro te loolu loraange lay doon Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokk ak yéen pour Sud FM ñu jugee ca ci waawan dem fële ca Ndar foofu nag meeru Njaarndaan dafa dem daal yóbbul ay askan yoo xam ne ñoo dëkkee foofu foofule ci euh, village yi yóbbu leen daal lépp loo xam ne dafa jëm ci li ñuy euh, bale wala loo xam ne daal mooy tax ba set euh, mën a am loolu yépp ngir xeex coronavirus yemu ca moom directeur général bu AGETIP jox na it jàppale na bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy liggéey ci post de santé bi foofu Yves Tendeng lim bu takku ci ay produits de nettoiement rawatina ay détergent la ñi nga xam ne ni ñooy askanu commune bu Ndiandane jóge rek jot ci ndimbalu seeni maire di El Hadj Malick Gaye mi nga xam ne ni moo jiite kuréelu AGETIP. di sant d'abord son excellence le président Macky Sall ñëpp xam nañ ni combat bi moom moo ko porté moo demandé ñëpp wàcc dem ci population yi jéem leen jàppale pour que ennemi noonu bi nu am te mu nekk suñu biir te gisuñu ko te muy noon bu waar que nu mën ko gagné. ci dynamique boobu laa ñëwee dans la département de Podor commencé nag sama commune muy Ñandaan. muy ay produits yi ñu fas yéene séddale mbooleemu askan yi nga xam ni ñoo dëkk ci gox yi nga xam ni ñoo nekk ci commune bi rawatina Caali ay Numadi Kodit Fass Mbàcc Njono ak Njendaar. incha allah dinaa leen defal don don boo xamante ni dafay am ay saabu am ay eau de javel am ay madaar poste de santé yi ma jéem leen ma thermoflash pour que ñu mën a consulter malade yuy ñëw. di wax leen ay alcogel et cetera en tout cas produit yoo xam ne yëpp ñu ngi koy utiliser pour la prévention. ki nga xam ne nii mooy infirmier chef de poste bu Ndiandaan di Birahim Diouk moom daanaka rafetul na bi leen ndimbal. thermoflash la tudd donc thermoflash la day permettre au moins ñu ki ñëw dispensaire ñu flashé la ñu xam au moins est-ce que tu présentes un cas suspect oui ou non d'abord avant ñuy def leen fekk kenn laalu la. donc vraiment merci un grand merci à monsieur muy ay jéego yi nga xamee ni bokk na ci liñ ci mébét moo direk fexe ba lii di coronavirus ñu mën ko xeex te fexe ba kenn du ko am ci douane googu lay nekk ci département bu Podor. à mel waral sax woote bi nga xamee ni maire bi di El Hadj Malick def na ko jëmale ci askanom na ñëpp respecté lu docteur yi di wax. na ñëpp a respecté li président di jël comme ndogal na ñëpp a jéem changé comportement ci wàllu set ci wàllu raxasu. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tandeng Sud FM. Yves Tendeng ngir bañ euh, coronavirus bi law bu baax a baax ci seen dëkkuwaay yi moo tax it mairie bu ginnaaw raay dafa daal jël ay poudre ak li ni xeetoo daal di ko xëpp foofule loolu nag euh, mi ngi amoon ginnaaw daal nit ñu seetloo ne euh, coronavirus bi law na bu baax a baax ci Sénégal moo tax it ki nga xam ne mooy maire ba di Abdoulaye Diop moom it mu ngi soññi askan wi daal ñu topp bépp digle boo xam ne daal waa kër docteur ñu ngi koy am lay rawatina nag wàllu couvre-feu bi Abdoulaye Diop maire maire bu ginnaaw raay sud la ñuy déglu ci micro El Hadj Moussa Thiam. ñu dañu tey fii pour euh, liggéey ak waa service d'hygiène pour que ñu pomper commune bi dimbale population bi tuuti xam nga euh, li nga xam ne mooy. covid 19 coronavirus benn virus la boo xam ne ku ne xam ne nu muy euh, wàllante dafa gaaw donc ñu bëggoon na aussi fexe ba loolu ci pompage boo xam ne dañ koy def pour suñu kër yëpp ci la raay waaye bi ñu ko waxtaanee ak saouditaine ñoom vraiment ils nous ont conseillé à ce que ñu xool place publique yi mag yi nga xam ne moom la nit ñi di falal di daje donc tey moo tax tey ñu ngi ci mairie mais ils vont faire vraiment euh, marché bi euh, jumaa yi jàkka yi sant bi place en tout cas place publique yi mag yi dinañu fa dem pour pomper ko désinfecter ko carrément su paree nag ñu jublu nag ci wàllu yóbbu nag ay yeneen bagage yoo xam dina dinaa ko yóbbaat ci population ndax bii laay commencé ndax commencé woon naa def naa deux actions bii mooy troisième action te am naa yeneen ñaari action yu may def yoo xam ne danaa ci ànd population bi pour jàppale leen pour accompagner leen baax a baax incha allah askan bi daal ñun nañ je crois recommandation ñëpp a ngi koy télévision yi rajo partout ñu ngi dégg vraiment li nga xam ne ñu ngi koy wax na nit ñi respecter les décisions de l' état euh, li ñuy wàll wàllu cet wàllu à faire ci masque yi ngay tax en lépp loo xam ne daal ñu ngi koy wax na nit ñi kenn dootu leen jàngal corona bi nu mu ak ni kon je crois que tey euh, war nañu jël seen disposition parce que lañ leen di wax noonu loolu ëllëg ci seen kaaraange dong lay lay jublu incha allah. waaw couvre-feu bi bi ko bi ñu ko déclenché dama toog 3 ak 4 jours. man personnellement ma génn. comme man am naa autorisation de sortie génn jaar pour xool commune bi nu mu tëddee. mais gis naa ne population bi. wax dëgg yàlla rek resté nañu. vingt heures trente la commencé vingt une heures mais fekkuma kenn ci mbedd bi. ku nekk yaa ngi si biir kër vraiment di ko gérer bu baax te loolu mooy li nga xam ne moom la état bi comme loolu aussi ñu def ko partout li ñu defee ginnaaw euh, muy Sénégal fépp daal na nit ñi respecter recommandation yi ñu joxe tey ak ëllëg li war a wax parce que tey ñu ngi ci co confinement wala couvre-feu mais demee mën naa am yeneen recommandation suivant la décision de l' état kon daal na nit ñi taxaw bu baax di déglu parce que boo liggéey tam loolu moo ñu dimbali rek pour que vraiment ñu mën a wér ñu am tuuti liggéey yaram. incha allah état bi wax na ko mi eh, ngi am taxawaay bu am solo kon eh, ñu ngi xaar euh, wala préfet pour ñu wax ñu euh, naka la ñuy taxawee ci distribution boobu te loolu bu neexee yàlla buñ ko buñ ko joxee ñun dinañu respecté exclusivement les recommandations de l'État solo. parce que lii état bi joxe ñun ñëpp sénégalais ñoo ko bokk kon lépp lu ci wax nañ ko loolu lañ ko doxalee bu neex yàlla du am benn Abdoulaye Diop la woon moom mooy maire bu ginnaaw raay euh, sud euh, fagaru moo gën faju moo tax it fële ci Kaolack kuréel bi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu épidémie euh, foofule ñoom daal dem nañu daal di xoolaat ndax war nañu yokk bërëb yi nga xam ne daal ku am jàngoro bi fa lañ lay dalal moo tax it daal am na benn batiment boo xam ne daal tànn nañu ko te it ñu ngi wut matériel bi nga xam ne daal moo war a ànd ak moom ngir daal saa yu ñu amee ay cas ñu mun leen fa yóbbu te toppatoo toppatoo leen ci anam na mu gënee ñu déglu si gouverneur bu euh, Fatick Seynabou Gueye ci euh, micro Ngor Sarr. li nga xamante ni mooy préoccupation bi. muy jëm ci lii nga xamante ni mooy suñu suñu suñu hôpitaux yi ak fi nga xamante ni foofu la ñu war a fajoo kon laaj na tey jii ñun euh, ci ñaari semaine ca kanam ba ñuy toog di waxtaan ci suñu comité régional bi ñu fi tëral ñu doon waxtaane loolu pour seet naka la ñu yokkee tey jii ci région bi li war a tax tey jii ñoom ñu mën a am prise en charge bu am solo ci loolu bañ ko liggéeyee am na bâtiment boo xamante bu ñuy liggéey boo xamante ni pare na sax ndax du lenn lu dul dem équiper ko defaraat fa ay lal yooyu te PUMA muy projet boo xamante buy yëngu ci mbirum euh, dëkk yi nga xam dañoo jege frontière wala ñu nekk ci euh, forme frontière dëkk yooyu euh, comme région yi da leen di jàppale pour installer leen fa tànt boo xam dina tax tey ji képp koo xamante ni da feebar mu mun a yokk capacité bi nga xamoon moom la structure sanitaire yi di am kon bâtiment boobu ñu am buñ ko booleek ak tànt bi war na mën a yokk li ñu war a mën a jël en charge ci région bi te loolu mooy fàttaliku ne ci région bi la waaye département bu ci nekk tey ji soo demee di fa fekk comité départemental te ñoom it ci loolu la ñuy bi xibaaru bitim réew. Euh, ñu dem euh, fii euh, ci Mali lu soriwul dara Sénégal waxtaane wàllu ki nga xam ne daal mooy la Cissé te nga xam ne fi mu toll nii mbokkam mi tegutuñu ko gët secretaire général yore lépp lu jëm ci wàllu jokko bu URD di benn parti foofule moom nag nee na daal xibaar yi nga xam ne mooy daw ci xarala yu yees di réseaux sociaux yi dina daal kii di Soumaïla Cissé teggi nañu ko loxo wala boo gisaat nañu ko loolu dara amu ca ñu déglu moom moom lee demb Traoré ci euh, micro Birama Ndiaye bi nga xam ne sax moo ñuy firil ay kàddoom. Euh, je tiens waaw li ma bëggoon wax euh, rek mooy que ne information yooyee ñu dégg ñuy circuler ci réseaux sociaux yi di xamle ne kii di honorable député Soumaïla Cissé daal di nañ ko bàyyi mu dellu këram loole nekkut la nga xamante ne lu wër la ndax boobu ba nege si ñun ci suñu wàllu bopp gisaguñu Soumaïla Cissé te amaguñu benn jokkalante boo xam ne dox na suñu digganteeg ñoom kon yooyee kàddu doon na loo xamante ne daal amut lenn lu koy firnde ba tax rek ñun ci suñu wàllu bopp ñu daal di woon yëkkati kàddu yi ngir daal di weddi loolee ci seen kanamu auditeur di xam leen ne boobu ba léegi kii di Soumaïla Cissé gisaguñ ko ñoo ngi wéy di xaar di wéyal la nga xamante ne itam moom mooy recherche yi jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. ki doon addu ñuy euh, teew lu mooy Demba Traoré di ki nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu euh, jokko ci URD bu euh, Mali doon weddi xibaar yi nga xam ne mooy daw ci réseaux sociaux yi di xam la ne kii di Soumaïla Cissé tegg nañu ko loxo moom yi nga xam ne dafa réer lu ëpp ay bës a ngi nii foofu foofule ca Mali ginnaaw gi nga xam ne ña ngi fay doon amal seen élection législative ba tey ci wàllu xibaar biti réew dañuy waxaat wàllu coronavirus gis fi mu toll nii te àdduna wërngal këpp daal ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan euh, ñu ngi ko xayma ci luy tollook juróom benn euh, junni juróom benn fukki junni euh, ci àdduna wërngal këpp lu ëpp nag ay millions yu doomi aadama fi mu toll nii ñoo amee jawmu jàngoro boobu boobule ci seen yaram te feebar bi te li ñu nemmeeku daal bu ñu sukkandikoo ci waa OMS nee na luy tollook téeméer ak juróom-ñeent fukki réew ñoom ñoo am dëkk yoo xam ne daal jàngoro bi dugg na fa euh, nag xam nañ ne ci àdduna wërgal këpp moom moo si am ñi nga xam ne ñoo ci gën a ñàkk euh, seen bakkan muy toll ci euh, fukk ak ñeenti junni doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan États-Unis nag moom li fa fës mooy daal ñoom ñoo gën a fësle ci ñi nga xam ne ci àdduna wërgal këpp ñoo ame boobu jaam ngoro ci jamono yi ñu toll ndax toll nañ ci ñetti téeméeri junni ca Chine nga xam ne nag fa la mbir bi bawoo woon moom am na ab tan boo xam ne xaw nañ ko fa nemmeeku euh, bu ñu jugee ca Chine ba tey wax ci wàllu coronavirus dem fële ca France nga xam ne luy tolloog euh, juróom ñaari euh, junni doomi aadama ak ñeent juróomi téeméer ñoo si ñàkk ñoom seen bakkan jëmale ci coronavirus boobu la nga xam ne daal ci fukki fan ci weeru ak fukki fan ak juróom ci weeru mars bi nga xam ne ci la jógee ci la ñu daal door di tere askan bi ñuy génn ci mbedd mi bu dul daal soxla soo xam ne gu jàmp jàmp la ci Espagne nag moom ñoom it daal euh, tëj bi nga xam ne moom la ñuy tëj askan yi fi mu toll nii ki nga xam ne mooy euh, waa ñi yore gouvernement boobu lay rawatina Pedro Sanchez nee na daal dañuy yokkaat mbir mi ci ñaari euh, ay bés yi ñu jëm mu jëmaat ba ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril bi ñu ne ñuy tere askan wi daal ñu génn ci mbedd yi loolu yëpp ngir moytu bu baax a baax law bi nga xam ne moom la coronavirus di law ba tey ci xibaare bi ti réew ñu jeexale ko fële ca tolloog fukki doomi aadama ak juróom-ñeent ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw ay jàmmarloo yu am ci ñoo xam ne daal dañuy euh, kujje foofule maanaam daal ay gan yu am foofu foofule ci euh, bët sa gannaaw réew mi foofu foofule ca Mexique bu ñu sukkandiku euh, ci ñi nga xam ne ñoo ngànk yooyu lee dëkk fii la ñuy yemandi ci xibaaru njëkk ci suba si si wolof ci rajo Sud ñu sant Assane Thioune bi ñu ci àndaloon kii di soxna Aji Fatou Bari dina teewaat ci kanamu micro bi ngir dégtal pàcc xibaar yi ciy français jàmm ak jàmm. Aji Fatou Bari Madame, Monsieur, bonjour. Les migrants sénégalais de retour au pays et ressortissants de la région de Thiès s'indignent des difficiles conditions de séjour dans lesquelles se trouvent actuellement euh, des Sénégalais vivant en Europe en confinement euh, depuis plus d'un mois avec des conséquences économiques désastreuses ressenties euh, face à la presse. Ces migrants sénégalais de retour interpellent l'État du Sénégal à prendre au sérieux cette situation pour des mesures d'assouplissement. Nous écoutons

moyens, les moyens appropriés pour exactement faire face à un certain taux. À deux ans, on peut gérer. À trois ans, on peut gérer. Mais vu un certain niveau, je pense que ce sera alarmant. Donc, à nous sommes, le gouvernement devait anticiper sur les mesures du qu'il faut prendre sur le côté santé, sensibiliser les gens et recruter des jeunes qui vont faire face à cette pandémie. Qu'ils viennent ici, qu'ils il faut animés de bonne foi, qu'ils C'est qui Donc là où vous êtes, acceptez que c'est, ça émane de Dieu et votre foi et suivant les mesures qu'on vous a données selon le pays que vous êtes. Si votre pays vous donne telle consigne, est-ce que les consignes et n'essayez pas de sortir Inch'Allah, je pense que d'ici très peu, c'est ça que des histoires qu'on va répéter et le bout passer. d'entendre Pape Diakhaté, porte-parole des migrants sénégalais de retour et ressortissants de la région de Thiès. Nous restons à Thiès où le mouvement national des policiers en retraite s'implique dans la riposte contre le virus Covid-19, le respect des règles d'hygiène et le mot d'ordre décrété par ces anciens policiers qui défendent les forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur mission. Babacar

mais nous sommes en train de faire des efforts physiques euh, pour vraiment pouvoir endiguer situation. Et dire au président Macky aussi que nous avons suivi ce qu'il est en train de faire. Il a reçu des anciens premiers ministres, des responsables de partis autres. Nous étions à ses côtés depuis et nous tenons à dire au président vraiment s'il pouvait nous recevoir en audience, qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer à jamais euh, situation. et de leur mission, euh, surtout Cheikhna Keita. Quand le Sénégalais est informé d'une situation, doit pouvoir respecter les consignes et les ordres. Le président de la a été élu par le peuple sénégalais et qu'on lui a donné aujourd'hui les pleins pouvoirs, ce qui est normal. Et par conséquent, ces Sénégalais-là, qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas vraiment respecter les ordres, on doit vraiment les pousser à respecter ces ordres-là. Donc, euh, féliciter les policiers, ce avec ou de cette pandémie. Babacar Ndaw, Thiès Sud L'armée nationale sénégalaise déploie un important dispositif d'identification de passage clandestins, euh, clandestins aux frontières est du pays. Le colonel Simon Ndour, commandant de la zone militaire numéro 4, assure que des moyens humains et et matériels sont mis en place pour renforcer les unités d'alerte de Kédougou et de Bakel. Il précise que pendant la journée, les axes sont occupés euh, par la police ou la gendarmerie et qu'au niveau de l'armée, ils mènent des patrouilles pour voir les points de passage illégaux. C'est en raison de l'état d'urgence et du couvre-feu en vigueur de 20 à 6h du matin dans tout le pays. Le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal est très remonté contre le directeur des transports et le directeur général du Il les accuse de faire du dilatoire sur l'aide du chef de l'État destinée aux acteurs du transport en ce contexte marqué par la propagation du virus Covid-19. Nous écoutons Elage Ibrahim Sek, leur porte-parole. Il est au micro de Elage Moussatia. Nous avons entendu dire effectivement qu'il y avait un budget dénommé Force Covid-19 de vie des populations, mais également des sociétés, euh, que ce budget effectivement se la réalité. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que les populations, y compris les professionnels d'État que de transport, quand on lui demande d'arrêter son véhicule, il doit quand même euh, au moins obtenir un minimum de compensation. Personne qui serait chargée de cela ne nous agrée pas forcément et donc ça pose se faire au niveau de chaque gare. nous tenons à ce qu'on respecte les chefs de regroupement des gares. de l'intérieur tenaient à partager le restant de leur budget avec leurs collègues chauffeurs, apprentis et autres. Mais c'est pas facile. dans tous

apparente habituellement au cas des forces manipulatrices que l'on ne voit pas. Nous leur disons d'arrêter ces manipulations-là. Euh, ce lobbying est inutile. Euh, El Hadj Ibrahima Seck est le porte-parole du syndicat national des travailleurs des transports routiers euh, du Sénégal à Rufisque. L'opération Zéro enfant dans la rue a démarré depuis vendredi. Le préfet et le comité départemental de défense et de protection des enfants ont ramené près de 88 enfants dans leur famille d'origine. Euh, sur près de 400 daara recensés dans le département, une dizaine de maîtres coraniques ont accepté le départ volontaire de Nizia Sambou. Le lancement de l'opération de protection des enfants vulnérables vivant dans la rue Talibé, enfants de la rue Mandian Fakman, a eu lieu dans le quartier de Djorgue Chérif en présence du préfet et des membres du comité départemental de défense et de protection des enfants. Deux maîtres coraniques ont accepté le principe du départ volontaire des Serigne qui ont soutenu qu'ils ne pouvaient plus entretenir les talibés et ont accepté de les faire retourner D'autres vont également suivre. Ils seront transportés, accompagnés en vivres et appuis financiers. L'objectif, c'est de ne plus voir aucun enfant mendier ou errer dans la rue en protection. Ceci en collaboration avec les associations et mouvements de jeunesse comme les scouts Croix-Rouge, CMEA Rufisque, encadrés par les travailleurs sociaux du Centre d'accueil Avenir de l'enfant ADE. Pour la journée du vendredi, enfants ont été retournés dans leur 49 pour Koungheul et Tambacounda. Demain, 79 talibés et enfants de la rue seront acheminés vers le sud du pays, dans leurs familles respectives. Le dernier convoi est prévu pour lundi. Ceux qui n'ont pas de destination seront placés au centre d'accueil Avenir de l'enfant, à la maison des éclaireurs et au centre national de formation et d'action. Les autres daras qui ont accepté les conditions de rester et de retenir les enfants seront appuyés en denrées de première protéger les enfants vulnérables et qui sont dans la rue contre le Covid-19. Rufisque Sambo pour Sud FM. Après Rufisque, direction Thiès et plus exactement euh, Ndiassane où le Khalif général apporte sa contribution à l'État du Sénégal. Il appelle euh, les populations à suivre les instructions des autorités et à rester chez elles pour stopper la propagation du virus Lutte contre le coronavirus, les autorités religieuses de Ndiassane appuient l'État du Sénégal avec une forte enveloppe financière. Le geste symbolique en présence de l'autorité administrative, le sous-préfet de Pambal, une occasion pour le khalife général de Ndiassane d'appeler à la recommandation de prière. Papa Abdourahmane Kounta, porte-parole de la famille Ahlul Kountiou. mu doon loo xam ne du symbolique la muy enveloppe boo xam ni def ñetteel la mu cay def mooy ñaan goo xam ni sëriñ bi baaxee na ko njaboot gi ak askanu senegal nee na mi ngi ñaan képp koo xam ni yaa ngi yeewoo fii ci réew soo jullee ba pare ak loo yàkkamti yàkk na nga toog ubbi ko benn salaatu al nabi jàng juróom-ñaari fatihatul kitab bismillahi ba mu yegg teg ci salaatu ala nabi juróom-ñaari yoon nga dem sa yoon bu ko ñëpp defee de jot na ci mbaaxu yàlla ni li nga xam ne moo ñu tiital yàlla dina ko fi jële la lutte contre le coronavirus une bataille à laquelle le chef de l'État Macky Sall a invité tout le monde selon le sous-préfet de Pambal Ndiogou Ndong je me réjouis d'être là ce soir auprès du Khalif général des Khadr, Serigne Bekay El Bekay. Cette cérémonie qui nous réunit au palais Khalif pour la remise symbolique de sa participation à la lutte déclenchée par le chef de l'État pour combattre le coronavirus. C'est une bataille à laquelle il a invité tout le monde, chefs religieux, responsables politiques, leaders politiques, tout le monde pour amener son arme pour cette guerre. Nous sommes en guerre, donc nous avons besoin d'armes. Cet après-midi, le marabout nous a appelés pour nous remettre une importante somme d'argent. Une occasion pour le calife de Ndiassane, Cheikh Albekaï Albekaï Kunta, d'appeler les populations à rester chez elles. Papa Abdourahmane Kunta, porte-parole de la famille de Ndiassane. bi ci des mooy toog ci kër yi. il faut mu am parce que loolu itam nañu xam ne alquran ko santaane. moo santaane bu balaa ñëwee. loo xam ne dafa tiital ñëpp. kenn ku nekk na toog ci këram. bu mu yóbbu bu mu indi. bu demee mën indi jàngoro. te Babacar Sow pour Sud À Saint-Louis, le maire de Ndiandane, c'est dans le département de Podor, a offert des produits de nettoiement et des détergents aux habitants de plusieurs villages de sa circonscription. Le directeur général de l'AGETIP y a aussi offert des appareils médicaux au personnel du poste de santé Yves C'est un important lot de produits de nettoiement et des détergents que les populations de la commune de Ndiandane viennent de bénéficier de la part de leur maire, Elhaj Malik Gaye, par ailleurs directeur général de la GETIP. Effectivement, comme vous le savez, je voudrais d'abord euh, rendre un vibrant hommage à son Excellence euh, le Président Macky Sall qui a instruit son gouvernement et ses différents démembrements, les collectivités territoriales, à s'inscrire dans une dynamique solidarité pour appuyer nos C'est dans ce cadre-là que je suis venu aujourd'hui dans le département de Podor en commençant d'abord par commune pour le apporter à mes populations un don constitué de matériel de lavage des mains au savon. Donc c'est un lot d'un montant de Des produits qui seront redistribués aux habitants des villages de sa commune, à savoir Tchali, Aïnoumadi, Kodit, Fas, Mbach, Nyono et Gendar. Il a d'abord du savon, nous avons de l'eau de javel, nous avons de l'alcool gel, nous avons des savons liquides. Voilà ce dont est foncé principalement de ça, mais en plus de cela, nous avons doté le poste de santé d'un thermoflash des masques. Pour sa part, l'infirmier chef de poste de Nyandan, Biraim Djouk, salue cet appui du maire. Vraiment magnifique, le geste qui est venu à son heure. Alors, on vient de recevoir un appareil thermoflash qui est très important actuellement dans le dispositif sanitaire. Des efforts visant aujourd'hui à lutter contre la propagation du coronavirus dans cette partie du département de Podor. D'où cet appel du maire El Hadj Malick lancé à l'endroit des populations. De respecter, comment dirais-je, toutes les mesures édictées par euh, les professionnels de la santé, à savoir le lavage des mains, respecter la distanciation sociale, rester chez soi, éviter les groupements de personnes, éviter les embrassades, les accolades. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Renforcement de la capacité d'accueil au niveau des structures de fatigue, le comité régional de gestion des épidémies identifie un bâtiment et son équipement en cours. Euh, Seynabou Gueye, le gouverneur de Kaolack, est au micro de Ngor Sarr. Votre préoccupation, c'est le renforcement de la capacité d'accueil au niveau de nos structures sanitaires. Je voulais aussi vous dire que dans le cadre du comité régional que nous présidons, nous avons euh, au cours des deux travailler justement sur ce schéma, disposer d'une plus grande capacité, parce qu'on s'est rendu compte au niveau régional. Bon, nous, nous continuons à, à, à, prier Dieu pour que cette situation demeure toujours comme elle est présentement. Mais si aujourd'hui on devait être confronté à une situation, à plusieurs cas, au moins qu'on puisse disposer, renforcer davantage cette capacité d'accueil-là. Et nous avons déjà identifié le bâtiment pour cela. Nous sommes en train de l'équiper et même aujourd'hui avec le programme d'urgence euh, de modernisation des axes et territoires frontaliers, il est prévu aujourd'hui d'installer une tente pour, au niveau de, des, des locaux justement devant abriter cette zone-là, pour que réellement on puisse augmenter davantage la capacité d'accueil. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, euh, d'ici peut-être la semaine prochaine, on aura terminé en fait le renforcement. Donc c'est un renforcement au niveau du comité régional, mais il est prévu aujourd'hui avec les différents comités départementaux qu'on a au niveau de Fatick, de Gossas et de Foundiougne de faire de même. Mais puisque l'urgence était d'abord de régler pour le cas régional, c'est-à-dire d'augmenter Je peux vous dire que d'ici deux semaines, en fait, euh, nous allons renforcer pour le plan, pour le niveau régional et pour les niveaux des départements aussi, suivront euh, d'autres. Euh, c'était donc le gouverneur de euh, Fatick, euh, Seynabou Gueye. Retenez que le Sénégal compte 219 cas déclarés positifs au virus Covid-19, dont 72 guéris, 2 euh, décédés, 1 évacué et 144 sous traitement. Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale feront le euh, la situation de cette maladie tout à l'heure la fin de ce journal. Dans une poignée de secondes, retrouvez Hapsa Iliman Wan pour le journal en wolof. Ce sera précisément dans 4 minutes. Merci à Hassan Choun qui a assuré la partie technique. Très bonne à toutes et Diouf. Habsa Elimane Wane. asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ci rajo Sud FM rawatina ci ñaareelu pàcc xibaar yi ci suba si Assane coon la ñu ciy àndal moo ne ci euh, xarale gi li ciy gën a fës nag dañu koy door ak euh, ñi nga xam ne daal mooy doomi réew mi nga xam ne dañoo dellu si si mim réew euh, rawatina ñi nga xam ne nag ñoo bokk foofule ci région bu Thiès ñoom nag ñi ngi ñaawlu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xam ne moom la doomi réew mi nekkee ca biti réew rawatina. ca Europe ndax euh, ni ngi ko xamee ñoom euh, lu ëpp weer a ngi nii daal euh, dañu leen tere génn moo tax yi daal am na ay jeexital yoo xam ne ci wàllu koom-koom ci seen wàllu dund it la am moo tax it ñoom ñooñu la si seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñu ngi daal ñaan nguuru Sénégal gi mu gën a jàppale ñi nga xam ne daal ñoo nekkee biti réew jamono jii te sonn lool ndax coronavirus bi ñu déglu kenn ci ñoom di Moustapha Cissé ci micro Babacar ñëwee gerte par rapport sénégalais yi ni ñuy vivre ci dëkk bi parce que bari na nit ñoo xam ne gëmuñu affaire ba léegi da ngay wax nit mu naan gëmu la ko donc pays yi nga xam ne ñoom comme Italie ak France ñoom ñoo dem ba am ay problème waxuma la ñun sénégalais yi nii actuellement da ngay wax nit mu naan la feebar bi amul fekk gëw ma donc ñuy ñaax doomu aadama ne lii am Europe xajul Sénégal xajul parce que au moins Europe boo fa nekkee boo ne ambulance soo defee cent dix huit bala nga def deux minutes ambulance ñu ci yow ñun gis na Thiès yëpp amul ma dix ambulance soo demee hôpital régional la fa nekk mënuñu garder au moins deux cent cinquante personnes hôpital boo xam ne amul deux cent cinquante personnes tey benn quartier donc bu ñu feebar amul fu ñu leen def kon donc sénégalais yi war nañ parce que li am Europe bis bu action fi yàlla bu mu fi ak du moytu affaire bi dafa garaaw ba jaaxal tubaab yi démb boo demee Espagne peuple Espagne bépp dañu génn toog ci bitti di julli di jéggulu yàlla parce que dañu tiit ba xam ne lii amuñu solution yàlla rek moo ci def kon donc mi raam ñëw fi ñu dëkk amaguñu ma deux cent personnes nañu jéem arrêté affaire bi fii fu mu toll gis nañ ay chauffeurs yoo xam ne dañuy dem Dakar ñu ngi ñu déggee benn immigré bu dugg ci réew mi dañ lay signalé ñun parce nga dugg ci réew mi nga rey sa famille rey sa sa rey sa dëkk loolu yaakaar nañ ko moytu affaire bi nañ ko moytu affaire bi dafa garaaw Sénégal ñi ngi nii un mois yu ñu liggéeyal mënuñu ko toog parce que sénégalais xam nañu dara amu ci dëkk bi ma ñu génn di émigré loolu nag su gënee métti xamu fu ñu jëm ki doon àddu ñuy euh, teewlu mooy Moustapha Cissé bokk ci euh, immigré yi nga xam ne dañoo dellu si si mim réew ñoom nag li leen métti daal mooy euh, nekkin bu métti bi nga xam ne doomi réew yi nekk biti réew moom la ñu nekkee rawatina ci jamono ji nga xam ne dañ leen tere génn mu indi leen nag ay jafe-jale jafe-jafe ci wàllu koom ak lépp lu jëm ci wàllu nekkin ñu wax ba tey xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex jàngoro bii di coronavirus te ñëpp daal soobu ci rawatina mouvement bi nga xam ne moo ëmb kuréel bi ëmb policiers yi nga xam ne dañoo dem à la traite euh, ñoom nag daal ñoom ñëpp ñoo jug daal ngir xeex wàllu Covid boobu boobule euh, nee ñu daal ne ñu fexe nag ba lépp loo xam ne dafa jëm ci ay euh, mesures yoo xam ne dañ ko jël ci wàllu cet ñu sàmmoon sàmmonteeg moom Babacar Ndaw mbootaay bi bu policier à la traité du Sénégal fas yéene wu ñu des ginnaaw si xeexu mbasub Covid 19 Cheikhna Keita di seen njiit jàpp nag ne. lu war la. tey jii feebar bi bàyyiwul kenn. kenn umpalewul ne feebar bu doy waar la parce que spécialiste dañ ñoo ba ni virus invisible lu ñu mënul gis la. waaw kooku mbir yàlla la. donc tey jii tey lu ñu mën mooy fagaru. fagaru mooy tax lu bëri nga mucc la. tey def nañu confination consigne boo xam ne heure bi nangam kenn warul dox kenn warul génn mais nañ ko respecté nañuy raxas loxo yi nañuy fexe ba bu ñuy tusóoli ñu tusóoli ci musóor wala ci leneen mais bañ ko def ci ci mbooloo yooyu yëpp yoo xam daf ñuy permettre ñun ku yëg sa xam ne tàngaay wala feebar wala ngay kii nga dem ci docteur bi seet yëkkati ko ah, donte jàpp na ne seen jumtukaay ah, taxu ko mat waaye jàpp na ne am nañu xel ak xalaat tax na ñuy tàllal loxo njiitu réew mi di wax aussi autorité police bi na ko ñun de alkaat lañu ba léegi ñu ngi ci génn nañu nekk retraité mais bu nu aajoo ci ittoo ci lu mu ci mun doole dañu wuyu si ko wax aussi ne président Macky Sall bëggoon nañu amoon nañu aussi yéene bi ni ñëpp di joxee ñu un million deux millions un milliard ñu doxee ko mais nag tey jamono doxee noonu ba mënuñu ak ñeneen yi mais ñun ci ñu bokk société civile bi ñun ci ñu bokk. si jamono état d'urgence ak couvre-feu donte ñu ngi joxoon yenn saa force de défense et de sécurité policiers à la yi tey jii di leen gën a ñaax ne seen liggéey ñu ngi koy def ni ki mu waree Cheikh na Keita. gis nañu aussi ñu naan alkaati yi dañ ne jàpp nit ñi nangam nangam waaye kan moo nekk ci kaw yàlla kenn ku dul yàlla rek mooy buur bi donc bu ñu santaane ñoom ñoo fal Macky Sall ñu fal ko mu nekk président de la République risque yoo xam ni mi ngi koy jël ngelaw laa ngi koy def moom mën na jël feebar bi bàyyi jabar bàyyi soxna bàyyi ay doom bàyyi yaay papa di def loolu mais jox ko cër war a jox mais bu ñu toogee bi di ko won doole ak di ko doolu mooy dal loolu dalul yoon alkaati bi liggéeyam lay def dañ ko war a encouragé si seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi fii si Thiès jàpp na ne xeexu ko mbasu covid 19 warul bàyyi kenn ñëpp si war a dugal seen loxo ngir tey ji ñu jële ko fi Babacar Ndaw Thiès Sud FM Babacar Ndao jërëjëf ñu wax ba tey ci xeex bi ñuy xeex coronavirus armée nationale bi nag teg na benn dispositif boo xam ne bu am solo la loolu yëpp ci euh, fi nga xam ne daal ay yoon la nga xam ne moo nekk suñu digg yeneen réew yi nga xam ne ñoo ñu wër rawatina bu région bu Tambacounda ak euh, ci Kédougou bu ñu euh, sukkandikoo ci suñu naataangoo yi nekkee ci APS colonel Simon Ndour di commandant zone militaire numéro 4 daal teg nañ fa ay nit ak matériel yoo xam ne daal dana tax ba. gën a dëgëral liggéey bi nga xam ne moom lañ fa doon amal ci Kédougou ak Bakel mi nga xam le ne ci euh, journée bi maanaam daal si suba si daal euh, police bi ak yi ñoo fay euh, nekk ci yooyu yoon yi nga xam ne daal ñàkkul am na ay askan yoo xam ne dañuy jugee ci dëkk yi ñu wër di fa duggee yemu ca moom ki nga xam ne mooy commandant zone militaire numéro 4 di colonel Simondou dénk na waa APS nii nag bu dee bu dul sax police bi ak gendarmerie bi armée saa def ay patrouille jëmale ci euh, ñooyu nga xam ne yoon yoo xam ne daal ñàkkul askan wi ñoo ko sàqal seen bopp ngir mën a dugg suñu réew euh, syndicat bi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi yëngu ci wàllu dem beeg dikk bi ci wàllu tali bi ñoom nag dañoo mer ba futu nee nañu daal euh, ndimbal bi nga xam ne moom la leen jiitu réew mi war jox daal jagleel leen ko daal dafa mel ne mbiri daal leerul ci seen bopp ñu déglu ci Alassane Ndoye ci micro élage Moussa Thiam couvre-feu nit ñëpp nañu toog kenn ku nekk fa nga nekk bu fa jógee fekk na auto transport en commun yëpp kenn ku nekk yaa ngi ci raison yi bàyyi sa kër ñëpp respecté nañ ko toog ci raison yi kenn mënatu la dem kenn mënatu la ñëw ñu am ay déclaration yu ñuy dégg dañu am nag ñoom ay lobbying yu ñuy def yoo xam ni ànd ak ay certaines personnes ci transport ñu jox leen ay information ci na ngeen recenser nit ñi ndax président day jàppale chauffeur yi nga xamante ne bi dañu gàllankoor seen seen seen liggéey nag dañu ni si président la jóge jaar si ministère des transports jaar si directeur transport ak CETUD ñooñu information bi ñu mën a joxe si régions yi mooy chef division yi si transport joxe nañu ko nag recensé nañu ko ba pare mais gisuñu dara ndimbal moo xam te ne dafa jóge si état bi jóg si chauffeur yi chauffeur yi nag sonn nañu ñu toog mënatuñoo dem mënatuñoo ñëw chef de garage yi tas seen i seen i kees dundal nañu ko chauffeur yi leen ba jeex na ñoom ñi nga xamante ne bii nag ñoo jëloon ay matuwaay ba gaaraloon nit ñi nañu fexe pour jox seen chauffeur yi seen loolu nag su fekkonte ni jaaroon nañ ko fi ñu ko war a jaar nga xamante ne bi wax nañ ko ak njiiti transport yi ñu jiite chauffeur yi yaakaar naa ni loolu dinañ ko teg ba bu mot d'ordre bi jóge chauffeur si mën ko respecté te duñu loru nee nañu président dina leen dimbali ni mu leen di dimbalee nag na wax ñu jiite transport te bañ seet nga xamante ne bi da leen neex rek te ñu jox leen mot d'ordre message boobu am na ñoo xamante ne bii nee nañu Cheikh Omar moo leen wax nañu recensé ñi ñu recensé ñan la nee ñu chauffeur yi nga xam ne ñooy daw interurbain ñooñu rek la ñu wax wala muy dem Guédiawaye wala muy dem Parcelles Assainies ñu ni ko ñaari nit ngay jël kooku est-ce que gàllankoor ñu ko est kooku bokkul si ñu war a dimbali ñi nga xamante ne bii si transport bi lañ doon dunde chauffeur bi daw moo leen dem di ñëw di leen jox seen dépense chauffeur bi dematul ñëwatul kooku kon fu muy dunde njëga bi nga xamante daan yëpp quarante ñu ni ko quinze personnes ngay kooku ko kon wax dañoo jaarul mi fi ñu ko war a jaar ki doon addu ñuy teewlu mooy Alassane Ndoye bokk ci syndicat xam ne moo ëmb liggéey liggéeykat yi yëngu ci wàllu dem beeg dikk bi euh, ci euh, tali bi euh, ñu wax nag ba tey ci wàllu xeex bi ñuy xeex coronavirus dem fële nag ca Rufisque foofu nag daal dañoo jël ay opération yoo xam ne daal li ko tax a jukk mooy fexe ba bépp xale boo xam ne yaa ngi ci mbedd mi ñu jëlee la ca préfet be comité bi nga xam ne moo nekk foofu di aar ak ak yelleefu tuuti tànk yi ak gone yi te it di leen sàmm ñoom daal fexe nañu ba jël luy tolloog ñeent fukk ak juróom-ñetti taalibe euh, ay gone daal yi nekkoon ci mbedd bi delloo leen ci seen i njaboot ñenn ñi féete ca Koungheul ñi ca des ca kafrin wala ca Tambacounda Denise Yassambu lancement delloo taalibe yi ak xale yi wër ci mbedd bi ñu ngi ko tàmbalee ca quartier Diorga ci teewaayu préfet ak comité départemental buy aar tout tànk yi foofee nag ñaari sëriñ daara nangu nañu ñibbiwaat ci seeni coobare ndax mënatuñu téye ak toppatoor xale yi nga xam ne nee ñu dañ leen di bàyyi ñu ñibbi ci seeni waajur tey ak suba yi tamit lu toll ci juróom benn maître coranique dinañ ci topp dinañ leen dugal ci ay bus yóbbu leen waay tamit gunge leen ak i dootul wër mbedd yi ñu lëkkaloo ceeg association mouvement jeunesse yu ci mel ni scout éclaireur ak croix rouge waaye tamit travailleurs sociaux ak avenir de l'enfant yi adee bëccëgu démb aljuma lu toll ci fanweer ak juróom-ñeenti tout tànk delloo nañ leen ci seen famille fële ci Koungheul ak Kaffrine ci samedi bi tamit ñaari convoi joge nañu Tëngéej dem Koungheul ak Tambacounda ñu defoon nag lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñeenti tout tànk dibeer bi ñeenti kaar dinañu jóge Tëngéej ak juróom-ñaar ak juróom-ñeenti leen yóbbu ci bët saalumu réew mi ci seen famille convoi bu mujj bi nag ñu ngi ko programmé altine ñi nga xam ne xamuñu fu ñu dëkk wala amuñu fu ñu jëm dinañ leen placé ci centre d'accueil ADE maison des éclaireurs ak centre national de formation et d'action daara yi nga xam ne nee nañu dañuy toog fas yéene respecté condition yi ñu tëral dinañ leen jàppale ci wàllu dund ak itamit koppar ngir ñu mën a téye xale yi dina ak opération boo xam ne dañ koy amal ngir aar tout tànk yi wër ci mbedd yi ci jamono ji ñuy wax covid 19 tëngéej Denise Yassambo pour Sud FM bawoo ci euh, Tëngéej ca Denisia bu nga xam ne yéen a ngi déglu ci 98 point 5 jàll ca Thiès nga xam ne yéen a ngi teewlu ci 102 point 2 wax ba tey ci wàllu jàngoro bi di Covid 19 ak xalifa bu euh, njaasaan moom nag mi ngi jàppale nguur gi bu baax a baax ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex euh, bile jàngoro moo tax it daal mi ngi gën a soññi askan yu ñu des seen i kër ni ko waa kër docteur digale loolu yépp ngir jàngoro bi ba gën a law Babacar Sow. faagaagal lii di coronavirus kilifa yi ngànk ndogali ci wàllum diine ca diwaanu Ndiassane ñoom nag taxaw tembe ci wetu nguurug Sénégal joxe koppar yu takku ci li ni mel di loo xam ne lii ci teewaayu autorité administrative bii di sous-préfet bu Pambal tax na ba xalif général ahlul kuntiyu di santaane ay ñaan papa Abdourahmane Kuntaw jëwriñ jore kàdduk xalif bi ñu toog jotaay bii pour mu wane yéene mu doon loo xam ne lu symbolique la muy enveloppe boo xam ni def ñette mu sant nañu nag moom sax ni ñu tudd ci nekk waaye xëy na ñi ma koy jébbal ñoom lu ca nekk bu ñu xoolee ci kaw enveloppe bi ndax bind na ko ci ba noppi mu wax nag ni li ci des mooy fi ñuy tëjee mooy ñaan goo xam ni sëriñ bi baaxee na ko njaboot gi ak askanu Sénégal nee na ngi ñaan képp koo xam ni yaa ngi yeewoo fii ci réew soo jullee ba pare ak loo yàkkamti yàkk na nga toog ubbi ko benn salaatu ala nabi jàng juróom-ñaari fatihatul kitab bismillahi ba mu yegg ci salaatu ala nabi juróom-ñaari yoon nga dem sa yoon bu ko ñëpp defee de jot na ci mbaaxu yàlla ni li nga xam ne moo ñu tiital yàlla dina ko fi jële xeex ak coronavirus nekk loo xam ne lii njiitu réew na ci ñëpp ñu déglu ci sous dong di rafetlu li ni mel. lii nekk na lu rëy rëy rëy jàngale bu mag a mag la. kon ñu ngi leen ci gërëm di gërëm bu baax porte-parole ci turu arrondissement Pambal ñaan yàlla sëriñ bi yàlla yokk fanam. li nga xamante ni mooy jàngoro yi lëmbee réew mi. yàlla gaaw ko fee génne. ñu profité waxaale rek. nii toll nañ foo nga xamante ni. suñu amee kilifa rek. tënku ci ci ndigal lu bare mu a dañ. président république wax. kon loolu tamit ñu ngi leen ci gërëm bu baax a. tax na bu Ndiassane Cheikh Albekaay Albekaay Kunta di ñaan askan wi ñi ci bëri nañu ci des mooy toog ci kër yi il faut mu xam ne alquran ko santaane moo santaane bu balaa ñëwee loo xam ne dafa tiital ñëpp kenn ku ci nekk na toog ci bu mu yóbbu bu mu indi bu demee mën naa yóbbu jàngoro bu demee mën naa indi jàngoro te loolu loraanga lay doon Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokkoo ak yéen Babacar Sow ñu dem ca Ndar Géej foofu nag meeru Njàndaan moom dafa jël daal lépp loo xam ne dafa jëm ci ay xeetu euh, jumtukaay yoo xam ne moom lañu ñu war a jëfandikoo ngir set lu ci mel ne ay saabook li ni mel jox ko euh, village yu bari yoo xam ne foofu la ñu nekkee directeur général bu AGETIP jël na it ay jumtukaay jàppale ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci post de santé bi foofu foofulee. Yves Tendeng lim bu takku ci ay produits de nettoiement rawatina ay détergent la ñi nga xam ne ni ñooy askanu commune bu Ndiandane jóge rek jot ci ndimbalu seeni maire di El Hadj Malick Gaye mi nga xam ne ni moo jiite kuréelu AGETIP. di sant d'abord son excellence le président Macky sal ñëpp xam nañ ni combat bi moom moo ko porté moo demandé ñëpp wàcc dem ci population yi jéem leen jàppale pour que ennemi noonu bi nu am te mu nekk suñu biir te gisuñu ko te muy noon bu waar que mën ko gañe ci dynamique boobu laa ñëwee dans la département de Podor commencé nag sama commune muy Ñandaan. muy ay produits yi ñu fas yéene séddale mboolemu askan yi nga xam ni ñoo dëkk ci gox yi nga xam ni ñoo nekk ci commune bi rawatina Caali ay Numadi Kodit Fass Mbàcc Njono ak Njendaar. incha allah dina leen defal don don boo xamante ni dafay am ay saabu am ay eau de javel am ay madaar. poste de santé yi ma jëm leen jox thermoflash pour que ñu mën a consulter malade yuy ñëw jox leen ay alcogel et cetera en tout cas produit yoo xam ne yëpp ñu ngi koy utiliser pour la prévention. ki nga xam ne nii mooy infirmier chef de poste bu Ndiandaan di Birahim Diouk moom daanaka rafetul na bi leen ndimbal. thermoflash la tudd donc thermoflash la day permettre au moins nit ñëw dispensaire ñu flashé la ñu xam au moins est-ce que tu présentes un cas suspect oui ou d'abord avant ñuy def leen fekk donc vraiment merci un grand merci à monsieur le muy ay jéego yi nga xam ne nii bokk na ci liñ ci mébét moo di fexe ba lii di coronavirus ñu mën ko xeex te fexe ba kenn du ko am ci douane googu lay nekk ci département bu Podor. à mel waral sax woote bi nga xam ne nii maire bi di El Hadj Malick def na ko jëmale ci askanom. na ñëpp respecté lu docteur yi di wax. na ñëpp a respecté li président di jël comme dogal na ñëpp a jéem a changé comportement ci wàllu set ci wàllu raxasu ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tandeng Sud FM Yves dañuy jógee ca Ndar Géej dem fële ca Fatick foofu nag comité bi nga xam ne daal moom la ñu euh, sant lépp lu jëm ci wàllu épidémie nan la ñu ko fay euh, yore bu baax a baax ñoom nag ñoo nekk daal di euh, saytu loolu yëpp ngir gën a daal yokk bërëb yi nga xam ne saa yu ñu amee koo xam ne dafa am jàngoro bi di coronavirus ñu mën la jël en charge na mu waree toppatoo la bu baax ba nga wér ca moo tax it daal jot nañ daal tànn benn batiment ña nga it di xool daal Euh, jumtukaay yi nga xam ne moom la batiment boobu lee soxla daal nu ñuy def ba jot ci ñu déglu si gouverneur bu Fatick euh, bu Guèye lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Ngor Sarr li nga xamante ni mooy préoccupation bi muy jëm ci lii nga xamante ni mooy suñu suñu suñu hôpitaux yi ak fi nga xamante ni foofu la ñu war a fajoo kon laaj na tey jii ñun euh, ci ñaari semaine ca kanam ba ñuy toog di waxtaan ci suñu comité régional bi ñu fi tëral ñu doon waxtaanee loolu pour set naka la ñu yokkee tey ji ci région bi li war a tax tey ji ñoom ñu mën a am prise en charge bu am solo ci loolu bañ ko liggéeyee am na bâtiment boo xamante bu ñuy liggéey boo xamante ni pare na sax ndax du lenn lu dul dem équiper ko defaraat fa ay lalak yooyu te PUMA muy projet boo xamante bu yëngu ci mbirum euh, dëkk yi nga xam dañoo jege frontière wala ñu nekk ci euh, forme frontière dëkk yooyu euh, comme région yi da leen di jàppale pour installer leen fa tànt boo xam dina tax tey ji képp koo xamante ni da feebar mu mën a yokk capacité bi nga xamante moom la structure sanitaire yi di am kon bâtiment boobu ñu am buñ ko booleek ak tente bi war na mën a yokk li ñu war a mën a jël en charge ci région bi te loolu mooy fàttaliku ne ci région bi la waaye département bu ci nekk tey ji soo demee di fa fekk comité départemental te ñoom ci loolu la ñuy liggéey ki doon àddu ñuy lu mooy soxna Seynabou Guèye di gouverneur bu Fatick doon wax ne daal fi mu toll nii ñu ngi xool daal lan la ñuy gën a yokkee daal bërëb yi nga xam ne képp ko am coronavirus danañ la fa mën a yóbbu ngir faj la ci anam yi gën. Habsa Elimane Wane lii lañ leen indiloon ci xibaar yi ci euh, rajo Sud FM ci euh, suba si ñu sant euh, di gërëm Assane bi ñu ci àndaloon sant yit di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen safo rajo Sud FM bu 9h jotee ak jàmm aji Fatou Ba dina teewaat ci kanamu micro bi ngi dëgtal leen xibaar yi ci ni mu gën a gàtte ñu yendoog jàmm.